واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen seer te di leen ndokkeel di am mbégte bu baax a baax ci ñëwaat ci seen émission bu am solo boobu di gàgganteku gàggantiku nag muy émission boo xam ne eh, dafay aju ci ay laaj ak ay tont yu aju ci seen diine lépp loo xam ne dafay indil nit ki mu xam diineem ñu ci ànd ak ay boroomi xam-xam eh, seen seen bii di seen seen MKTV di leen ko defal ñaari yoon ci weer wu nekk muy le 9 ak le le 22. Eh, tey jii nag ñu ñëw fii ci Daaru Salaam Ndaam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane ngir ànd ak moom ci gàggantiku ci suñu bindu tey. xam ngeen ne eh, weer yi jàll muy ñaari weer yi wala ñett eh, gisu leen émission bi waaye màggal gi ak gàmm gi moo ko waraloon émission yi jàll ñi ngi woon ci buntub laab ba léegi nag ki la des tey jii ñu ñëw ci tomb bu am solo ngir war cee gàggante ku muy lu aju ci wàllu faj aajo eh, suñu duggee ci biir waxtaan wi sëriñ bi danañu leeral yan àttee la ci lislaam tëral ak nan lañ ko war a defee kon sëriñ bi bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eh, sëriñ Abdou Lahad maa ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Abdou Khadir ak bokk yëpp ak mbooleem ñiy teewlu MK TV bi ngi wax ci ëttub xam-xam bi nga xam ne moo tudd Gàggantiku di ëttub bu am njëriñ ndax ab jullit ak diineem dañoo lënkaloo te l'islam day tere mu làmbatu dara kon lu ñu def rek dañ ko war ci xam kon di jéem a xam li ñu war ba sunu jaamu yàlla mën rafet lu am solo la kon ñu ngi koy rafet lu baax di ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq te lépp luñ ci def ci lu baax yàlla na ko yàlla mhm. sëriñ bi kon su ko defee ñu ñëw ci tàbbi ci laaj bi kon buñ buñ la doon laaj euh, lan la lislaam tërale wala nan la Euh, sunna jàngale faju faj aajo. jërëjëf sëñ Blaat xam nga faj ajo moom nit ñoo ànd yàlla mu bind doomu aadama noonu bokk na ci li mu wuutee ak malaaka yi malaaka du lekk du naan du tuur dugub du tuur ndox nit nag day lekk di naan di tuur dugub di tuur ndox am nag atte yu aju ci ginnaaw tuur dugub ak ndox ndax loolu ñuy tuur sobe la te nit nag bu sobe génnee ci moom daa war ci moom mu laabal ba boppam buy génne sobe it daa am nu ko lislaam santaane nit du mala boo xam ne fu ko neex wala fu mu ko jotee rek mu génne fa sobe daa am nu ko lislaam santi ndax teral gim ko teral tax na mu sutural ko ba lépp lu muy def loo xam ne ak doye di nit da caa feeñ day bëgg mu sutural boppam bu koy def waral lislaam santaane bu ñuy faj aajo ay teggiin ak ay atte yu ci aju yooyu ya ci jiitu mooy nit ki buy faj aajoon na làqatu nit buy faj aajoon na làqatu bu dee ci àll deewal ba fu dara sori nit ñi te it bul todd ci naan dafay fay dara tiimul dañuy bëgg sax dara sa dox diggante ak nit ñi làqatu ci garab làqatu ci dara dal bu dee fi ñu toll ci kër yi kon ñu wut ay wanag waaye danañ jàng ci loolu wana wër kon wër te nekk ci warut nekk fu digg ba nga xam ne nii daanaka bu fu jegee nit ñi ba xam ne bu fa nit nekkee lu muy def nit ñi di ko dégg loolu dafa dàqoon teg teg génne lislaam ndax bu doon ci àll bi dañu bëgg nga sori nit ñi ba duñ dégg li ngay yëngu waaye na nga leen na nga làqutoo dara bu seen sa jëmm kon loolu liñ ci dégg mooy wanag it day am buntu ñaari am na nit ñoo xam ne seenu ñàkk euh, yëg-yëg day tax buñ duggee ci wanag sax duñ tëj buntu bo dañuy bëgg nga tëju ba nga xam ne nii bu nit ñëwoon jàpp ne kenn bu sax bu laalee bunt bi du mën a ubbi ko loolu lépp day dugg ci te gii ni ñuy wax kon ci ci kër yi lañ nekk di wax wana yooyu nañ bàyyi xel ne lislaam du santaane fuñ jot rek def ko kon lu mu gën a làqu gën a sori fi nit ñi nekk moo ci gën ñu di ko wutal bunt tey tëj bunt bu ci nit ki duggee ndax loolu sutura su ko defee kon làqu googu ak sori nit ñi luñ santaane la ba noppi nag euh, nit ki buy faj aajo dañuy bëgg mu yegg suuf dañuy tere lool nit ki taxaw di faj aajo rawatina bu dee tur dugub ndax faj aajo yegg suuf gi ñaari njariñam gi sutura la ci yow ba noppi dan la tax doo tax sobe fiñ maye tuur ndox taxaw rek mooy barab boo xam ne boo fa toogee tax sobe ndax lépp dafa takk sobee soo yeggee suuf sa yére takk sobee te boo taxawee du la tis kon fu nooy la wala am daal lu ñu fa def loo xam ne yow mën ngaa taxaw di aajo te du tis te boo toogoon nag sa yére takk sobee foofu moom nit mën na faa taxaw di tur ndox kon du ne taxaw di tur ndox dañ koy tere jamono yëpp waaye foo xam ne dafa nooy te laab toogal léegi suuf foo xam ne nag dafa doon barab bu kekke nga xam ne boo taxawee mu tis la ba noppi sobewu boo toogee it sa yére tax barab bu mel noonu dañuy tere ko fa tur ndox ndax doo mucc ci sobe ko barab yooyu dañuy tere ko fa tur ndox kon fépp foo xam ne dafa am kekk nekk peron nekk ay euh, fuñ karle ba noppi la fa nekk lépp tax sobe foofu dañuy tere ko fa ko fa tur ndox ndax boo toogee sa yére tax boo taxawee mu yooyu it bokk na ci yi nga xam ne Eh, yi ma ta xam la moom ay teggin nag nit ki suñ fa faj aajo it dañoo bëgg noonu ñu waxee barab bi ñu faj bala faa dugg na tudd yàlla ndax seytaane dafa bëgg barab bi taq yi seytaane moo ko sobe ñoo dëkk saa boo jékki-jékki ne saraax ci barab bu xam ne barabu sobe la te tuddoo yàlla aar sa bopp lor mën na la fa fekk ndax mën nga fa fekk seytaane mu dal sa kaw wala mu tiital la wax dañuy bëgg nit ki suy dugg ci wan rek mu san mu tudd bismillah wax allahumma inni audu bika min al xubuthi wal xabaith bismillah maa ngi ta maa ngi dugg ci tur yàlla yow sama boon maa ngi ñaan nga musal ma ci saytaane yu góor yi ak saytaane yu jigéen yi loolu moom lu wala gu set set wala nga faa nag doo nekk bàgg ci weesu loolu nag moom wanag moom jëmmi wanag ci boppam rek mooy bérébu bérébu saytaane mm-hmm. waaw buñ ko xasee waajal bay lii wanag la mm-hmm. bérébu saytaane la foofu la bëgg moom dafay toog di xaar nga xam ne yàgg-yàgg soo fekk maam fekk fa sobe mm-hmm. foofu lañ bëgg bala nga fa duggoon nga tudd yàlla laqutoo ko ñaan yàlla musal la ci seytaane yi nekk ci barab bi mel noonu góor yu jigéen ñi boo xasoon àgg nag fàtte bu dugg ci wanag moom dootoo ko wax ci salaam bu dee barab bu sobewu waaye nag mën ko wax sam xel teewlu ci sam xel ñaan yàlla musal la ci seytaane yi fi nekk waaye daal lu nit yàkkamti yàkkamti na fexe bu dugg ci wanag balaa dugg na wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al xubuthi maa ngi nga musal mu seytaane góor yi ak seytaane yu jigéen loolu bu ko defee yàlla mën na ko musal ba dara du ko fa lor su ko defee wanag it boo fay dugg bul dara tur yàlla lu mu nekk tàggoo wala moom sa jaaro bi bu tur yàlla nekkee bind bismillah wala muhammad rasulullah wala yu mel noonu booy dugg wanag génne ko te gën la nga teg ko feneen wala nga sol mbubu mag summi ko euh, summi ko teg ko ci néeba wala feneen daal door dugg ci wana wala daal dañuy bëgg ñu sol tur yàlla loolu sax jar na bàyyi xel téléphone yi nga xam na nga ko yor muy sone ñi ci def ay sona sonnerie alxuraan wala yu ni mel wala xasida loolu moo tax bàyyi xel na maanaam jaaduwut aslan di ko def ndax dem ba turu yàlla alxuraan wala euh, zikar doyoo ko lu lu wuy wuy woote nga xam ne bu buy woote sax yow yëgatoo ni alxuraan la ñuy wax waaye nit a ngi lay war rek mooy teew sam xel weesu loolu kon yu mel noonu it rawatina nag bu fekkee da koy yor dina ci war léeg-léeg mu jékki-jékki sonn ci wanag alxuraan di difa jib loolu du teggin kon yu mel noonu ku mënta ñàkk def lu mel noonu booy dugg ci wanag yu fare ko ba génn ndax foofu wanag dee su fa tudd yàlla ci kaw loolu bokk na ci li ma xam bu ko defee nit ki bu faj aajo it yegg suuf lañ wax ni ko waxee ni ko xamee léegi it xeeti sees am yëpp yu mel ne yëpp xeetu taw toog la hmm. am na anam gu ñuy toogee ndax dañuy wax doomu aadama mbaq gi wetu càmmoñ la féete mm-hmm. wax dañuy bëgg buy jekki ci suuf moom mu sukkandiku ci tànku càmmoñam loolu day gën a yombal génn sobe si su ko doxee bu nee ci wanag nag bu ko dagg mukk te noppiwul mm-hmm. moo tax bu xasee dugg ci wanag bu geesu bu doon faj àll ci àll bu mu geesu mm-hmm. bu wax dañuy tere na ci biir wax di wax bu njëkk xëy na loolu nit ñi daan nañ ko nangu boo nekkee yow dong waaye léegi si nit mën naa na ci wan ak yóbbu bala téléphone am mm-hmm. ñoo xam ne dañoo bañ kumpa ba fu téléphone sonné rek faaw njël ko mm-hmm. donte ñu ngi ci wan ak it mën nañoo nekk di wuyu di waxtaan loolu nañ bàyyi xel ne wan ak dañuy ku ci nekk di wax bu ci xasee nekk bul wax ba faj aju ba noppi mm-hmm. dañuy bëgg sa bopp nga tekki dara dañuy def bopp neen bokk na ci liñ sopp su ko defee boo toogee def faj ba yëg ne aajo ji mat na lu mën a xew bul yàkkamti buy jóg te àjjuma tugul loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mas naa mu ñaari bàmmeel na ñii de ñu ngi leen di mbugal daan ne li ñu leen di de mooy du lu am solo daan ne ah kay lu am solo daan ne kenn ki daan ndax bu demee woon du fenn lu ñi nga xam ne dañuy yàkkamti rek jog sobe sa du jeex leen na waddaat si yére tax sobe ñu di ko julli baale ànd ak sobe tu duñ ko yëg. bàmmeel daan ne kenn ki da doon jëw nit ñi. te doon rambaaj doon rambaaj daal di dagg ñaari car teg ko ne xëy na fii car baa ngi tooy yàlla woyofal leen bugal bi kon jàng ci ne eh, jóg ci wanag te noppi woo lu mata moytu la ndax mën naa jur loolu ndax li boo noppiwut li takk yoon moom yàgg day wàcc moo tax bu dee tuur dugub toogal ba yëg ne madda bi doon wàcc jeex na tàkk mu door laabu bu dee tuur ndox noonu mu sax dañuy àgg dañuy bëgg bu dee góor la bu tuuree ndox ba yëg ne lépp jeex na awra ji na ko rat ndànk fëgg ba lépp lu tagoon wàcc mu door la loolu mooy tax su dara newoon ci diggante bi dana fekk mu génn waaye yàkkamti dana waral nga jóg daal di laabu fekk am na lu tagoon wàcc ginnaaw bi loolu bokk na ci li nga xam ne euh, lislaam du gërëm ni ñi di ko def bu ko defee wanag bi bu duggoon ak it bokk na ci tegeen lislaam tànku càmmoñ ngay jiital dugg ci wanag na nga jiital sa tànku càmmoñ booy génn bañ a jiital ndeyjoor bañ a jiital ndeyjoor booy génn jiital ndeyjoor maanaam ci wanag daal tànku càmmoñ ñu fay jiitu mu fay mujj mooy safaanam mooy jàkk jàkk dañoo bëgg nit buy dugg ndeyjoor ay njëkk ndeyjoor fay mujj kon booy dugg jiital sa ndeyjoor booy génn jiital sa càmmoñ bu dee jàkk waaye wanag moom booy dugg jiital sa càmmoñ booy génn jiitalal sa ndeyjoor nga xam ne càmmoñ moo fay njëkk moo fay mujj loolu bokk na ci tegg yi nga xam ne mooy bëgg nañ ne di ko bàyyi xel su ko defee liñ gën a taamu it mooy nit ki bay faj ajo bu mu lu mën a moytu xibla bu mu jublu xibla bu mu ko woon ginnaaw ndax ñaari awra la yor awray karam ak soo toogee jublu xibla sa awray karam jàkkoon na xibla boo jubloo ginnaaw sa awray ginnaaw jàkkoon na xibla xibla dañu bëgg ñu warmaal ko ba da ko jëm yooyu donte am ñuy wax sax ne bu dee ci àll boo xam ne dara warul la foofa lañ ko gën a soxla waaye bu dee kër yi nga xam ne am na saatir am na lu la wër ko mu wanag nga nekk moom ayatut waaye nag li gën mooy moytu ko moo waral foofu it ñi tabax ay wanag warul leen bàyyi rek bu def tabax kat ñu bàyyi muy dox coobareem ni ñuy tegee sees bi loolu dañ xam ne lislaam day bëgg ñu bàyyi ko xel nañ fexe bu mu jublu xibla bu mu doon diggante penkook sow bu mu doon waaw diggante penkook sow nga xam ne ki toog benn day jublu xibla wala moon ko kon laal na doon taxawee diggante Saalum ak Gànnaar mm-hmm. waaw loolu moo di man bàyyi xel am nañu ñu ko xam ñoo xam ne waaw waaye mën na suura ndax boo xasee tabax ba noppi di ko di ko soppi day jafe waaye bàyyi xel ne loolu loolu mooy li gën am ñu ne bu saatir xasee am nag bu la neexee nga julli ci tabax mënu ko xam moo tax yu mel noonu yëpp nit ki buñ ko tabaxloo it jullit mm-hmm. saa buy defarloo rek daa war a bàyyi daa war a bàyyi xel diine mm-hmm. ki am na yoo xam moo ko ci war a fii suñu mag ñi ridwanullahi ne bokkoon na ci seen yitte néeg boo fi mos a gis boo dikkee taxaw nii boo jubloo xibla boo jubloo mooy xibla bu ñaan tabax waaw daa bokk seen liggéey ñoom boobu am néeg day jublu xibla boobu ñoom loolu ñu xam diine koy xam natt la na nga xam ne boo xasee tabax waral daanaka barab yi boo fa demee doo am jafe-jafe fan mooy xibla boo dikkee nii kër gi taxawee nii rek da nga xam ne xibla la jublu loolu it ñu bàyyi ko xel baax a baax kon faj aajo ngoog du loo xam ne doomu aadama ji yàlla da ko ko mooñaaleel saa bi ko soxlaa nag na ko def bokk na ci li lor yeexe ko def bari na ay wéradi yu am ci nit loolu ko waral ndax lu war a génn la bu la mu fay def noppee bu génnut lu mu fa toogat rek day da yàq waral eh, dañuy tere sax julli di jañanteeg solo parce que koo xam dafa soxla woon nag demul woon nag xanaa na xaaral ma jël bu noppi dana waral doo mën a teewlu dana tax julli gëstu du ko mën a jox ak xam baaxut it ci biir géram tax yi mel noonu jaar di bàyyi xel kon gis nga mag ñi dañoo fonk lool waxtu jotee ndax waañ ga nga xam ne ba sax boo yëgu dara danga nga da nga gaaral sa bopp dem ci wàllu ba xam waaw boo noppee defar doo ñëw mu leer na booy julli ak dal nga koy julliwaale loolu it yi ñu war a tàggat ndaw ñi bañ xam ne yooyu dañ ko war a bàyyi xel. li nga xam ne jar nañ bàyyi ko xel bu baax <coughs> kon mu ñu bàyyi la nga tàggoo dafa mel ne sax waxtu eh, yam na ci mu jeex waaw kay waaw kay jërëjëf sëñ kon xam naa di sant mbokk yi di wax ne buntu yi nag dañu xam ne buntu yu war a yitteel ku ne la ndax ay nit lañ te it yittewoo mi ngi war tàmbalee ci ndaw ñi ma far di wax ndax nit lu mu tàmm man shaba ala shay'in shaba alayhi loolu naa di wax eh, mooy nit lu mu xas ci lay wéy gis nga mag ñi nga xam ne aaja woo nag la ca war jëf yombu leen da leen cee tàggu tontig ndaw yooyu yëpp nag kon dañ ci teel a xale yi ñu xam ne ay jullit lañ buñ juddoo ñu teel leen a tàggat ci loolu buñ ko màggalee jafe-jafe du taw loolu laay loo xel mbokk yëpp ñu xam ne it buntu ñu war di topp la lu ci ump nit mu di ko laaj ndax mooy tax diine mën a jag ndax jaamu yàlla yi julle ci gën a màgg te julli laab ab bu laab amul julli du am yonent islam noonu na bu yemal xaamee li mu njëkk a seet jëfi jaam ñi diggam ak jaam ñi liñ seq julli la ci njëkk seet bu jagee lépp jag bu jagul dara du jag te loolu sëñ mag bi radiyallahu anhu firi woon na ko ci ne bu wax na dee leen julli te di ko jubal bu ngeen dee julli te di lépp lu ngeen dëngaloon julli mën na ko jubal waaye moytu leen di julli di ko dëngal ndax dana waral boo léegi lu ngeen dëng jubaloon julli gu dëng nga na ci julli gu jub nag sarta yi mu war a àndal man nag moom sart yooyu nag laa ba jërëjëf sëñ Abdou Lahad jërëjëf sëriñ bi jasakallahu xayran mbokk yi ñuy seetaan kon yéen ko déggandoonu muy bunt bu am solo boo xam ne gàgganteku nañ ci tey mu aju ci wàllu faj aajo ci ni mu ko leerale kon mbokk yi képp koo xam ne topp nga waxtaan wi te am ci loo doon fal wala loo xam ne jàppe woo ko noonu na nga xam ne nii la ko lislaam jàppe muy lu am solo kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ñaanal sunu borom dina la gën a dolli tawféex ak wér ak yàgg fi. di sant it mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen émission gàggantiku te seen M seen MKTV di leen ko defal ci ñaari yoon ci weer wu nekk ñi leen di sant di sant Sëriñ Abdou so Bousso ak mbokk yi ñu doon topp yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم